sama Gal TV mbokku internet yi ñu ngi leen di nuyu di leen ziar di leen bal wax di balak di leen wax ne ñu ngi ci ci première édition bi nga xam ni mooy édition bi nga xam ni waa Mboro ñoo ko taxawal tey nag maa ngi taxaw ak waa Tivaouane defe naa ne ah kilifa gi nuyu naa maa ngi lay ziar bu baax a baax maa ngi lay fay euh, tur bi Ismaïla Sène la euh, nekk euh, bergerie Khalifa si baay Mbacké bu bu Tivaouane waaw macha allah Ismaïla Sène tey danga ñëw mbooro taxaw ci foire bi lan moo lan moo la jollee waa Mboro waaw euh, li ma indi mbooro nag li ma yokk indi Mboro dema jàpp ne Mboro ak Tivaouane benn lanu euh, ku ne Tivaouane da nga ne Mboro ba pare wax dëgg yàlla ñoom ñu nekk ay aji góorgóorlu di euh, organiser seen première édition ah. mu nekk loo xam ne ni Tivaouane dañ cee war a saf-saf wax dëgg yàlla loolu moo ma fi yokk a indi ndax gis nañ def def def acte waaw Reptel def nañ acte de présence boo xoolee box bi ko jox ah. sax dañ koo mujjee def salon ah. ndax soo xoolee indi nañu 17 box yoo xam ne ni Tivaouane la ñu jógee kon loolu yaakaar naa ne Tivaouane ñu ngi ciy jàpp tey ma ñëw gis exposition bi rafet trop nga ni ma maal bu doy waar waaye ma gis fi ay ay añel ak benn añu exposition bi lan la. waa exposition bi waaw exposition boo xoolee maal bi ay doomam rek la àndal. dafa ànd ak benn doomam bu góor ak ñaari doomam yu jigéen beneen doom ju weex jële jël deuxième ci con ci compétition yi moom doomu 3C la waa 3C moom ñëwul euh, euh, maal bi moom moo ñëw. maal bi moo ñëw. Mal moom mooy kan. ki moy francophonie. Uh-huh. waaw francophonie fu mu jige francophonie euh, maa ngi ko recruter Dakar. Uh-huh. mais francophonie dañu jël euh, ben femelle bu ñu naan Calvin Cap. Uh-huh. ñu jox ko salum salum ci la jur Picasso ak Mourid sadi ay cheikh lañu. ñu joxat ko ñu joxat ko Calvin Cap mom mu jur ci Ramadan. bu Tafa Diallo. ñu jël Ramadan bo dal di koy jox ben euh, femelle bu ñu Sarafina. doomu Ado la Ado doomu boy serer. la. ñu jox ko Sarafina mom mu jur ben mal bu ñu naan ñu daal di jël yërmande boobu daal di koy jox benn sëtu koromaak boo xam ne yaa ji euh, doomu francophonie la ñu boole ko ak ak ak yërmande moom mu mu jur mu jur euh, francophonie mi donc donc koo recruté wala dégguma dama ko recruté dama ko recruté dama ko recruté dama ko recruté à l'âge de 14 mois waaw man dama ko jël 14 mois après ma yóbbu ma dugal ko Mbour mu jël quatrième waaw año euh, espoir espoir waaw espoir mooy laa du met Ladoumète waaw Ladoumète bu Mbour. moo jëloon quatrième moo jëloon bu Mbour. instant mi ngi toll euh, mu ngi ci 27 mois. mu ngi ci 27 mois waaw. tey duggoon na fii. waaw waaw euh, euh, évalué naa ko fii ndax xam nga foire bi moom pare wu ma pour ñëw. dama xam ne dañoo war a jàpp ci mbooro bi rek ma daal di ñëw. mais defe naa dina classé quatrième incha allah. waaye nag dafa ñëw ànd ak ay ay añal yoo xam ne dama xamul wax ay doomam lañ wala. waaw añoo bi añoo bii doomam la. waaw añoo bii mooy verdict. moom doomam la. verdict verdict waa doomam la. Euh, moom euh, yaay ji yaayu verdict mm-hmm. doomu 3C la. ok 3C wax naa la ne la. doomu design la ak ndey tuuti. wax naa la ne design doomu intérêt la ak galactique. Uh-huh. te intérêt doomu zubéeru la galactique. Euh, moom lañ jël doomu Zubairu teg ko ci. léegi boo xoolee ci côté yaayu yaayu yaayu 3C boobu moom mooy ndey tuuti ndey tuuti doomu docteur la docteur doomu koromaak la. léegi boo xoolee ci yaayu ndey tuuti moomu mooy Mayram Mayram doomu buuba la buuba di doomu jeyti jeyti nag doomu Sasilon. macha allah léegi ma daal di jël femelle boobu daal di koy teg ci francophonie verdict mi juddu. verdict am ñaata mois. na 7 mois 7 mois yaa ngi mot nii. li tax ma tuddee ko verdict mm. euh, Youssou Ndour def ne woon làmb ji fi amoon daaw. waaw verdict ba la ñuy xaar. Ah. loolu moo tax ma tuddee ko verdict. kii mooy verdict bu francophonie. kii mooy verdict bu francophonie. macha allah incha allah. yu rafet yi nag. waa añal yu rafet yi kii doomu 3C la. kii kii borom kër yi gàtt yu weex yi. kii waaw doomu 3 la. waaw eh, yaay ji surtout Amadou Mbodj la. Uh-huh. doomu eh, yaayam doomu Moustapha la Moustapha Baye Diagne. Baye Diagne Amadou Mbodj. waaw Baye Diagne Amadou Mbodj. moom uh-huh. moom moo jur moom moom moom laa jël boole ko ak ak 3C euh, moom mu jur kii. mu jur waaw tët ba. tët bi doomu 3C mooy euh, maanaam ñetti ñetti benn añoo bi ak ñaari añal yi. Uh-huh. seen yaay yëpp ay doomi 3C lan. ok 3 moom wax naa fi mu bokk. moom moo dem ci galactique bi. dem ci Zibéru bi dem ci Koromaak euh, bi. dem ci Bachir bi. waaw macha kon daal euh, ñoom nga indi tey exposé leen euh, tey euh, instant bi bu boo demoon kër ga yan femelle ngay liggéey. seen yaaya nga fa. waaw waaw. seen yaaya nga fa mooy kan. bon kii yaayam mu nga fa princesse. Uh-huh. kii Ami Fall yaayam mu nga fa. kële kële bonheur yaayam mu nga fa. kii aussi Ndey Mama yaayam mu nga fa. Uh-huh.

ma puus ko ne le daal di jël 3 dugal. mu def benn tour du jur ñaayu ñii yàlla dogal mu daanu ma jël francophonie dugal. waaw kii tamit fi mu nekk nii maa ngi ci ay tànk euh, wutal ko keneen ku ku tëb ay doomam. ndax man du ma fixé xar. waaw macha allah ah, kon francophonie mi ngi noonu ñu ngi xaar résultat macha allah tey euh, exposition bi rafet lool euh, bergerie kër xalifa si kër Baye kër xalifa si tey lan mooy dernier mot beeg message beeg numéro. waa dernier mot bi may bi may lancé. moy euh, damay remercier damay remercier di beral euh, Ousseynou mi tiant ak ngeureum ndax damay wax ni samay xar nu ñu mel nu ñu mel rek Ousseynou mi def ci ab part de responsabilité nek ko xamné ni dafa dafa sawar ci samay mbir xolal euh, agnel bi mom moko ko doon défilé léegi maal bi moko ko défilé démb ah, añel bi jël 3e Agnel Agnel Agnel bi jël 3e 2e waaw moom moo jël deuxième moom sama agnel la waaw moom moo moo ko défilé vraiment waxuma la sax foire bi mais sama kër mënoo toog ñaari fan yoo ko gisul lépp lu xar yi laaj mu ngi ci te pourtant euh, éleveur la ndax moom moo exposé fii ah, euh, bergerie mère Mbodiam yi moom mooy borom te euh, foo ko fek mu ngi ci samay biir xar kon moom laay santal moom lay beral cant ak ngërëm macha allah. non gis naa gis naa lu mel noon ndax yow jour ba ñuy def émission ba kër sëñ Mansour sax. amoo jot yaa ngi woon ci terrain bi. di liggéey kon loolu boo ko waxee dëgg la kon am na ko ne si ginnaaw di la jàpp. waaw wax dëgg yàlla moom mu sama ginnaaw. mu ngi sama ginnaaw samay xar lim ci xam sax man xaw ma ko ci. wax dëgg yàlla mënoon nga def émission bi sax te du ma fi nekk ndax lépp lu ma la wax. Euh, moom euh, euh, mënoon na la ko wax lu ko raw te dama bëgg sax mu sànni ci ay kàddu. waaw. champion. waaw champion lay jaar. kontaan nañ trop. loolu euh, kontaan bu baax a baax. li mu wax dëgg loo loo gisee tey euh, foire bi gis nañ tey nga dëkkale xar yi macha allah euh, ngeen am ndam tey loo lu gannaaw bi lu mu wax loo ci mën teg. waaw mais di sant yàlla rek di sant yàlla bu baax a baax te xam ni lépp rek moom moo baax. ndax nit ki moom ni nga mel rek loolu ngay am quoi ndax damay jàpp ni tey lu ma am si élevage rek da koo mérito ndax nit koo xam te ne nii wax dëgg yàlla xoolu lu ma am xoolu lu ma ñàkk te këram awuma fa sens interdit yaakaar naa tey bu ma taxawloon juróomi xar ko ñii damaa bëgg ñu tëb si maal bi hmm. si yeneen femelle yu ma moomul sax du ko bañ kon kooku am na lu mu la sédd te nit ki nag lu mu la sédd lu ne yaay ko koy sédd te dafay jàpp sama élevage bu baax a baax a baax di yëkkati ay maal yu cher di ma ko jox may liggéey oh. kon dañuy sant yàlla bergerie Xalifa si Baye Mbacke muy Ismaïla Sène yàlla na ko yàlla defal ay champion yu bëree bëree bëri loolu nga seede nii keroog émission ba lu mel noonu la fa seede ne eh, maalam bu ko sëñ Mansour soxla woon euh, euh, euh, bu noonu la koy jox non man man man boog man man li ma defal xaw man nag ñeneen. mais wax dëgg yàlla damay damay dellu di sant daal ndax euh, di naan man mënu ma koo sant daal ndax dama bokk si moom lu bëree bëree bëri mais yàlla na ko yàlla defal jàmm macha allah nañ waaw bergerie mère Mbodja ma tuddee ko sama yaay waaw moo nekk nit koo xam te ni yàlla na suuf oyof si kawam di ko ñaanal bu baax fa mu tëdd macha allah mais nag jooyu ma yaay ndax jëmm ji li ma bëgg nii moom ma siy jàppale muy élevage macha allah waaw numéro bi euh, euh, ñu ngi nekk Tivaouane en face lycée soo ñëwee ba ci buntu lycée bi ci ginnaaw EDK bi foofu lañ gën a jege. Euh, boo defee 77 803 93 69 ñun ngay jot. boo defee 576 584 0004 ñun ngay jot. boo defee 930 957 63 49 ñun ngay jot. boo defee seen 0505 arobase gmail point com ñun nga jot ci site internet bi incha allah. dinaa kontaan. waaw jërëjëf maa ngi kontaan bu baax a baax a baax tabaarakallaa